noon nanu wallaahi ku fàttalikuwul yàlla yërmandeem a tax waaye bu ko neexee dalay boole njaam su tuuti nga fàttaliku ko te dootoo ko fàtte sëñ Saaliw ko waxan barki démb fàtteegu leen ko fàtteegu leen ko mbokk njaam su tuut soosu waa ji bokk na ci corona mu ndaw mi du dara du dara mënta rey mënta laggal mënul dara alxaaliq huwa almumiitu yi yàlla mi nu bindan moo nuy rey yàlla mi nu bindan moo nuy dekkal moo ko man keneen mënu ko moo nu teewul nga tiit de mooy mbokk looy tiit tiital ki bind yëf yi jàqal ci ki bind yëf yi kooku nga xam ni kooku nga xam ni loolu la waa jiy jox maare de saali bu jàppee waa ji ba mënta noyyi ñu wutal ko su machine ni ci lay noyee ci ay machine boobu buñ ko ko doon jaay ci ay milliards da koy jënd de machine bi lu mu lay jox benn oxygène waaw bëgg a jutoo ba léegi nag ki la doon jox oxygène boobu doo ko sant tey sa alal yëpp gi jeexal ko ci benn noyyukaay ki la joxoon noyyukaay ga nga doon ko noyyee ci biirub ja ba génn ci àddina mu ànd ak yow du la mere ba dakkal ko doo ko tooñ ba mu dakkal ko te ko rek ndax xam nga aka mën a jekku doomu aadama aka mën a jekku doomu aadama koo xam ne as ngelaw la yor rek soo xam ne da nga koy aajowoo jamono bu nekk te moo ko moom moo ko moom sunu sëriñ Cheikh Souhaïbou Mbacké radiallahu taala anhu daana bokk ci waaraateem boo dee dogu li gaa yi bëgg li nga xam ne nii mbokk yi mën nañ ko lool dogu mu laa mbokk yàlla yëfam yi moo ko moom de te bari na doole lool de te neexut a ci de kon teen koo neexal waay moo tax gaa yi naa ko rabbana ñaata yoon nga gis ci xasida yi Sëriñ ya rabbana ya rabbana ya rabbana ñaata yoon kenn xamul ñaata loolu yëpp neexal yàlla rek la yaa xibbana yaa xalilana lu nekk wax na ko yàlla di ko neexal rek yow nag nga féttéer lu ñime yàlla ba dem lekk sa ceebu jën ba mu neex la nga naa man kay nag moom dogu naa ni moom di ngeen am nangam foo ko teg foo teg yab yàlla yàlla dee ko yab bàyyi yow kër gi nga sóonu ci saalu baa ji ñi mu woofee dogu dinaa yóbbaale dara liwaa ji moom nga toog ci saalam bi nga gis fi loo moom loo bëgg lool te ñi mu laa doogu ni dinaa ko yóbbu wala nga di ko maye ponkal mu mag mii nag nga naan li mu yor dinaa ko maye koo koy maye danga nga caa am dara bokki jurit yi jitaay bi war na noo waarati xoolal ni nu yaroo moo ku nu yar borom bi subhaanahu wa taala waaj na nu ba jekk ngir wuy ji ko léegi ci kanam imaam dina ñëw wax baat bu ñàng baat bi mooy lan allahu akbar allahu akbar lu muy tekki mooy kenn màggul kenn rëyul kenn amul doole kenn amul pexe kenn amul kàttan illallah yàlla keppa yàlla keppa man lépp yàlla keppa man lépp moo tax kenn wërta tiit kenn wërta jàq ci dara du feebar du nit in kuntu saa watarin aw kuntu saa wajalin naadaytu sa laayni qabla raai wa siini sëriñ Tuubaa bañ koy ni ko teegaa maslaak góor yi ñoo yor yëf yi di yor nañu aslëf mën nga cee am yor na ñu garaat mën nañu ko takkal yor nañu yor nañu yor nañu mu ne ah man de waay wax dëgg yàlla nag bu ma amee sama aajo ju ma ñor wala ma am njàqare lu ma bëgg bëmax naa day tusal ars ki moom aras lay woo kooku lay woo waaye du woo keneen ñu ne ko lu tax mu ne ana ufawidu ahwali liman ajazu an aali anfusihim ajsal masakini nu may jële sama mbir di ko teg ci loxol ku lott ci mbirum boppam ni miskin lotte waa ji borom milliards yi moo gën a lottu miskin borom doole jiy cëpp-cëppi moo gën a lottu miskin bisa ngi ñëw boo ko laajee lépp te mu des fi mu jox la ko kon nag mbokk mi kooku bariwul doole ci bari doole mooy rabbuna subhanahu wa taala kooku le nañ ko jox barabam nañ ko jox palaasam kookoo ñi ñimee da koo xamul waaye ñi ko xam ñëpp dañ koo ragal lan moo daan tuur rongo ñu Seex Saalihu Mbàkke ku daan def am boo mbokk yi am da ngeen ko ëpp yaakaar walla dangeen koo ko ëpp jëf ba ngeen ree moom mu jooy laysa illa annahu yaarifu llah xam yàlla rek la dafa xam kim ko siqal mooy kan kim ko siqal la xam nu doole ja tollu te nun ñëpp kat xam na ni doole ji toll danañ dox doxlu rek waaye léeg-léeg nu jàpp waaju bari doole bis boo xam ne du manal boppam dara nu futti ba mu set seet ca këram fa gën a salte nu yóbbu ko fa mbasin bi du ko jege ñu ni déet da koy yàq lal bi du ko jege ñu ni déet da koy yàq yóbbu leen ko ca wan wuti leen perkaal moo gën a dëgër te na doon bu bees nañ ko ci mbëlëmës nañ ko yeew ba mu dëgër nañ ko yóbbu bu mu jege kër gi ne na sori ñu yóbbu ba ca àll ba ñu gas ñu ni na xóot muy bëgg a yaatu ñu ne pax mi daa yaatu ba mu na xat waaw kii kam fay fekk bu ko bëggee duma du yomb ay bokkam a ko sot yeew nañu ko suul nañu ko gën a dëgëral suuf si ci kawam kii kam fay fekk na bari yërmande bu bariwul yërmande dina metti de ndaxte daf koy jekku kooku nag nan ko tiit nan ko ragal bala nu faa àgg subhanahu wa taala gaa yaa ngoog foofu la gaa ya nekkoon démb ñi àgg ci yàlla ñëpp dañoo joxoon yàlla barabam joxoon yàlla palaasam ñu jëkk ña noonu lañu meloon xéer ci yàlla lu ñu jàpp ne bu ñu ko defee am tuyaaba daañu ko def lu ñu jàpp ne bu ñu ko defee am bàkkaar duñ ko jege dañ daan jëkkante ci aw yiw am na benn xele bu ñu daan wooye Abdullah ibnu Abbas maa ngi jéggalu ci baatu xele bi ma ko wax ndaxte mooy xibrul umma yonent bee ko tudde fóoree xeet wi mooy keraw ci xeet bi lu tax ma wax gune mooy bi muy wax lii may wax fukki at la am toog ci biir mag ñi ak yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wërsëgale ko mu féete ndijoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu muy joxe te bokk na ci aadaam buy joxe ndijoor lay tàmbalee te it bokk na ciy teggin booy jox mag ngay jëkke te mag yaa ngi ci càmmoñam yonent bi déey xele bii ni ko waa doomu may nga baal ma ma jox sa bàyyee ndax li ñu la mag mu ni ko déedéet mu ni ko lu tax mu ni maa sadara an yadil mustafa laa usiruhu ala ahad luy jóge ci loxol yonent bi du ma ko bàyyee kenn du bàyyi du ndey sa loxo bii lu ciy jóge du ma ko bàyyee kenn xoola jooju waay yonent bi siggi ni ko allahuma faqih fi diin kii de yàlla na nga def xam-xam bu bari ci dënn bi xam na ni ku ko jox xam-xam mu téye ko ndax dafa maandu ku ko jox xam-xam mu téye ko maandu xam-xam li muy jariñ mooy maandu boo amoon xam-xam ba xatéeri yépp jeexi te maandu amul njariñ Sëriñ Tuubaa wax na ko inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal funoon boo jeexaleen téere yépp te ragaloo yàlla te ku ragalu yàlla ka ragal nit ñi ku ragalu yàlla ragal nit ñi ku bëggul yàlla bëgg àddina bëgg peeñ lool bëgg ñu yëg la lool ndax yëgoo yàlla waaye ku yëg yàlla walaay di nga fàtte ku ne ku yëg yàlla danga nga fàtte lu ne amoon na benn buur yéen ñëpp jàng ngeen histoire te buur da lim daan maandu du bari te sax boolewuñ ko ci ñu gën a maandu di aaroona rasiid Aaron Rasiid mook imaam Malik ñoo du ñoo dund bi imaam Malik defaree téeréem bu rëy boobu ñu yooyee mu wattaa Malik te buur daa bëgg lu dafa demandé imaam Malik ni ko damaa bëggoon sa téere bi nga indi ko ci palais bi dinu ko firil imaamu Malik ni ko ilmuna yu'ta wala ya'ti noonu li nu yor dañ koy fekke waaye du fekkee ji boo bëggee jàng ñëwal fii ci sama kër mbaa nga fekk ma jàkka ja te mooy buurub réew mi waaye xel maa ngi ci xam-xam bëgg na ko te téeméer rakkale daan naa la par bis bu doon léegi ci wàll yi lañ koy boole te booba moo yilif réew mi waaye téeméeri rakkale yi naa la te taxul gaa yi boole ko ci ña gën ba imaam Maalik ni ko ñëwal fii kere ba muy dem gàngu naay gi dañ koo topp fu nekk yëngu ba mu agsi kër Malick kër gu gàtt googu fekk fa borom bu mu gàtt mooma mu toog ci benn gangu nday sees bu gudd buur bi ñëw mu tegal ko benn sees bu gàtt di ko jàngal mu wattaa ba mu wattaa àgg la mu ko doon jàngal àgg imaam Malick wàcc sees bi ni ko léegi nag sees bi seesu buur la na buur toog ci kaw waaye bi ma ciy toog yonoon toog ci toog moo doon moom laa doon wax waxam Malik daa fonkoon waxu yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ba boo ko nee dama lay laaj benn hadis dara naan may ma daa dem ci biir néeg bi bu sanguwul mu sangu sol yére yu rafet laalat kolañ di ko toog ni ban hadis ngay laaj ndax nee na du wax waxu yonent bi te fekk laabul servicewul te boo ko doon laaj masala fiq boo ko fekkee ca mbedd ma sax mu tontu la ko waaye fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam respecté yonent bi moo ko yóbbee ci du laal dara lu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam te waajul ba mu jekk foofu la gaa yi nekkoon Mawlana Cheikhul Xadim lu taxoon mu ni kansil kitaabu wal hadiisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zahab man daal maa ngi leen di xamal ni trésor bi ma denc te bëgguma ko ko laal mooy téereb yàlla bii moom képp laa am awma leneen awma leneen lépp lu loo jox sëriñ Touba lu dul alquran tegal fee lay wax ba mu des alquran moom lay nangoo ñaari loxo teg ko ci dënnam fóon ko woy ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta xablu tabibi yow la yaway sama doktoor yaa may saafara yaay sama lépp kon nag mbokk yi bis baa ngoog sunu borooma ngoog ak doole ju bari ja sunu borooma ngoog ak xam-xam bu bari ba xoolal ni nu toll ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kenn ku ne lii nux nuxi ci sa xol yàlla xam na ko ba noppi kii de warees na ko ragal koon ku xam lépp ak a mat ragal waaye ndax ragal na nu ko ndax bu nu fi jógee du nu delluwaat ci yëf ya woor nanu bàyyi nañ li yàlla tere bu yàgg ba tàyyi nanu continuer bàyyi li yàlla tere bàyyi woon nanu itam wax lu amul nanu continuer bàyyi ko ba nuy woor ustaas dañu doon jàngal benn hadis man lam yada xawla suuri wala amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa saraabahu nee na ku mënta bàyyi ay fen mënu laa bàyyi rambaaj mënu laa bàyyi jëw su yàlla amul soxla ci sa koor ba taxoon nga bàyyi ko bàyyi ko nag wéy moo lay jariñ kat bàyyi wax lu amul mooy développer àddina bi àddina bi yëpp li ko arrièreal mooy wax lu amul cey wóor ak a baax dafa am sunu benn mbokk sëriñ dafa amoon benn soxna man naa mi ngi may dégg de yàlla dogal mu xulaak soxna suñu dem tribunal soxna si déggul wolof moom arab la dégg bi ñu demee ba war a laaj soxna si te arab lay wax ñu ne ko kan moo lay tarjamaal mu ne xanaa sama jëkkër ji ñu ne ko moom ngay xulool di mu ne waaye dadul fen moo tax allahu akbar nee na du fen lu ma wax lay wax malgré dañuy xuloo malgré daf ma bëgg a yey waaye yey ma du tax mukk mu fen kookoo ngi dund mi ngi may dégg ndekete loolu am na ci àddina bi koo xam ne lu mu xuloo xuloo du tax mu fen lu mu mer mer mer du tax mu fen doo duural mukk ci àddina biig rek ndeysaan sama benn mbokk boo xam ne dafa jóge bitim réew ñu def leen loolu ñuy def nu mu toll si quarante ni leen dem leen seen kër waaye na ngeen tëju mu tëju ay fan docteur bi woo ko ni ko li nga mbaa yaa ngi tëju mun ko waaye sëriñ bi wax ji ma waxoon ak yow foofu ni dinaa tëju moo ma gën a wéral lii nga may wax ñàkk a wax dëgg laay bañ ni nga waxoon rek laay def sama waa kër sax dañ may borxal lekk ji te yàlla xam na ne tiit feebar taxul tiit la yow moom yi taxul xam nga lu ma tiit baat bi ma ne woon dinaa ko def boobu laa tiit comme noonu naa dinaa ko def dinaa ko def tey bu nit ñëpp meloon noonu kon nooy am réew mu développé léeg-léeg nga xuloog nit ñu ni jërul ngay dem police ndax bu ngeen demee moo lay yey ndax gaa yi dañuy farak yow saaga wu ëpp woowu sécurité amul ci àddina amul aka wuuteeg imaamu aliyin karamallahu wajha kere ba muy xuloog siif ba ak lislaam ak siif niñ jubóodi ko Seydina Omar di leen atte ñu indi sees tegal ko Aliyun ndax mooy gorob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi bokk ci xulafaawu rasidin mu ngi bokk ci jàmmaar ñayu xare wi ñu tegal ko sees Aliyun dikk jàpp ci sees bi ni waa sama xuloo waale bi anaf seetam kuy far bay far ak ki ngay xulool da koy indil sees mbaa ngeen dandale bii nu bokk taxaw ci baar bi foofu la gaa yi nekkoon moo tax Seex Ahmadou Bamba boo ko masaa tàggu di dem ci attewu kaay lam lay jëkk a dégg lu mu metti metti del wax dëgg dëgg fum la dugalit fu mu la dugal dana la fa génn ëllëg fen fum la muccalit dana la gaaral bu ëllëg dana la poñe bu ëllëgee kon fen baaxul bu nu ko bàyyee rek avancé na jéemee dara loo jéem lu dul bàyyi ko fa tapp yàlla yaa ngi juum mun laa am ngërëmul nit ñi kenn du ko am moo tax sëriñ Tuubaa ni wut leen ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla moo am solo nu ko wut te buñ ko wutee am am ko bu nu koy wut di ko am ni ko gaa yi doon amee mi ngi fi wa babullahi lam yakun murtaja sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee wax lu yéeme ni yàlla fegal na ma saytaane du ma jege fenn ñu ne ko loolu ku ko mas a am mu ni wa babullahi lam yakun murtaja bunt bi gaa yi daan jaar ba am ko mi ngi nii ubbeeku kenn tëju ko te ku fi ba léegi ñu ubbil la bunt yaa ngi ni ngàpp bunt yi dem ci yàlla mi ngi ni ngàpp ba bisub tey ku fëgg ñu ubbil la fëgg leen bunt yi di ngeen dem incha allah taala bu nu ko ubbee danoonu dem yal noonu yàlla boole ci ñuy dem yal noonu yàlla boole ci ñi nga xam ni yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen jot mi wala si biti réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo nga xam